sonaare Modou Lo bëri na daan na daana ci ne laay wax Ousmane Sonko atte ba jib na fii ak juróomi ak mënatul bokk ci benn élection mambay ñaa am na ci kawam ndam muy loo xam ne yàgg nga ko wax te yàgg nga ko insisté sëñ buur mhm. wax waxaat du bari wax mhm. xam li ngay wax la commencement ba ba Sonko kenn nuwul kenn da koy téye nee naa dañ koy téye mhm. ba muy am ndam nee naa la nii ñu ko setale askor buñ ko tuumaa ba yàgg ñu setal ko mhm. jaanam wàcc na mhm. suñu dernière émission dama ni la mhm. Sonko warul ragal kaso ndax kii di lay wàdd ñam na kaso limal la ay gaay yu fi jaar ñu ñam kaso man la du man la day toog nekk président de te dama ne la woon ca début ba Sonko président am gisuma ko léegi waaw billahi waxoon nga ko barki alxuraan te commencement ba gisuma ko de du dëgg waaw waaw loolu nga waxoon waaye nag sëñ buur mhm. asgoor dina am teq-teq te dina am gàllankoor mhm. te sama dernière émission nee naa la ndëgg sërëx yi ma gis ci Sonko ñu di ko ko lalal mhm, Mm-hmm. te boobu ñu ci bëri xalaat xalaatuñu mbiru Mame Mbaye Niang déedéet xam nga sëñ buur lan moo tax may tere yenn wax yi di ci dugg ba mm-hmm. dañ naan ma dee junj rek ndax damay borom jaboot mm-hmm. te bëgguma ku saaga te bëgguma ku ma ŋàññi te bëgguma itam ku dul Sonko waaye nag li war a nekk rek laay wax ndax sëñ buur bu doon bëgg xaalis képp ma ciy dugal Sonko ba muy doog a tëdd kon ma am lu ne waaye lépp dingitee ma ko gënal sëñ buur dama ni la Sonko xeex giñ koy xeex ba ci dernier fi ñu ko mënee dama ni la comme jot nañ ci bakkanu Sonko nan sant. dëgg la. ndax gàllankoor ba la nekkoon saraxam joxe nañ ko. Mhm. waajuram def na ko. Mhm. waaye sëñ buur dama lay giñal ci mbaaxu yàlla ni la Sonko bu nee tekk rek tekk wan ko yoon liy ñëw ci moom mooy dàq. bu yàqam ci ne nga dana bég. dina bég dina ree. Mhm. te ku mu àndaloon di nga bég ay jamono. lii maa la ko wax dañu ma ci benn yoon. lii maa la ko wax dañu ma ci benn yoon. Sonaada bëgguma sax yoole aan ah di dugg ci ay damay laaj rek directement Modou lu fu mu jëm ñu ngi naan Balla Gaye ñu ngi naan Tapha xam nga sëñ buur guddi yu jot man boo ma dee laaj ci politique gaa yi dañuy bañ mhm. nga may laaj ci làmb ji dañuy bañ mhm. xam nga li tax mhm. maa xew maa saf gaa yi maa saf ñeneen ñu dul gars yi dëgg la dama ni <laughs> samay wax jali muus la wàq rek gis gis nga kii di euh, nuñ koy waxee Modou Lo mhm. ndëgg sërëx yiñ ko lalal mhm. ci làmbam ji rek dañ ko ko cee lalaloon waaw man ñëw naa fi ci guddi gi nga ne ma ñu ngi war gàcceem waaye jàpp man ñaari yoon <laughs> ma koy gis <laughs> lay fanq gàcceem ci sarax mhm. bu ma dee dégg maa ko def ginnaaw yàlla ak yonante bi te nag werante xee xuuxaan dañ koy tuddee waaw tekki tubay dañ ne tekki te ba ma koy def itam séentuwuma ci lu bari mhm. wutuma ci lu bari mhm. waaye ka ma jiital laa bañoon gàcce mu am ko mhm. ndax mel na noo xam ne ci Modou kenn du ko sikki sàkk ndax Modou bu amee làmb ba di ko bëri du toog du taxaw te du lekk du naan sëñ buur Modou kii di Balla kii di Tapha su ma doon moom na ci teey wala bu ci dee dugg na ci duggee neneen ndax ndëgg sërëx yi daa bari te ñu ngi koy reeñoo te ay ponkali mag yi jëm ay kilifa ñoo ko toog nag bëgg koo baraawoo dégguma la soxna Ada ay ponkali magi jëmm ay kilifa ñoo toog bëgg koo baraawoo hmm. dañ koo bëgg a toroxal gàcceel ko hmm. éliminer ko hmm. bu ci dugg bu mu ci duggee ak neen bu ci dugg bu mu ci duggee ak neen soxna Ada man gis nga damaa yàkkamti ba nuyoo ma man man ku ne xam ne ne ay wax laay wër te man bu ma jàkkaarloo ak soxna Ada damay kontaan soxna Ada dugg nañ ci at mi bees mi euh, génn ci at mële at mële nga defoon ci ay révélation yu doyo doyo doyo doyo waar euh, wax ci ay wax ne at la moo xam ni sunu géej gi dana jël lu bari waxoon nga ko at la woon moo xam ni buur bëgguma wax waaye at muy tàng jër la at mu bari la wax nga ci ay révélation yu bari deux mille vingt quatre bi ñu jëm mën nañ ko jàppee at mu at mu nooy at la moo nga xamante ni ku ci toog ñu jiiñ la gaaf te yaa ay gaaf ay mbira ne ci biir. maanaam atum gaaf la. xeex bi ma ciy gis sëñ buur. Mhm. kilifa yi ci war a dem. Mhm. sëñ buur. Mhm. xat-xat yi ci war a am. sëñ buur. ñu bari nag ci la ñuy jotee seen teraanga. ñu bëri ci la ñu waaye seen waaye ñu bëri ci la nekk ci xat-xat. ba defe nit a leen ko teg. sëñ buur coow yi sew dina bëri ci at mii ak gàcce yu bari Hmm. bu ñu mënee jàll ci leneen. coowul politique nag mbirum président bu bees nangam nangam. sëñ buur chaque jour dama lay wax ay wax li may bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg Sonko. Hmm. xamoon naa ni dañ koy kepp hmm. te bëgg naa ko lool nag. yow xam nga ni man damaa bëgg sonk waaye dëgg la ngay wax. waaye dama laa xamaloon ni la. kilifa kenn du geer ak moom. boo geeree ak moom it li nga ci am ci ndam du bëri. Mhm. waxoon naa la ko euh, soxna Aada ñu ñu am ku ñu ku ñu jël rek euh, ci émission bi ndax nee naa ci at mu bees lañu nekk am ñu bari ñoo xamante ne que yaa ngi doon jëflanteek ñoom ci wàllu ñaan yàlla sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi yaa ngi ak buur géwél ci bii Prod Média. Mhm. maa ngi lay fay buur. tey soxna bokk nga daanaka ci ay doomam ndax nee naa sa digganteeg moom dem na ba nekkatul diggante ñaan yàlla. dëgg la waaye tey yan témoignage nga mën a def soxna man maa ngi koy nuyu di ko gërëm. Mm-hmm. moom sama yaay ju baax la. Mm-hmm. wax dëgg yàlla du ma def lu mu yëgul. Mm-hmm. mu def ma doom joo xam ne tamit du def lu ma yëgul. ñaan moo ñu doon doom nekk fi ne yaay doom. lu ma mës wax nag teg naa ci sama bët. rawatina sax combat bi nga xam ni. Modou Lo sunu mbër la ñu bëgg ko trop. Mhm. dañ ne suba la combat bi maa ñëw sama mbokk ba foofu. ba kër gi. ba ci kër gi mën ne ko yaay mën a naam ma ne ko ah sama mbër mi day bëri day kii mu reer noppi. ca Ama Balde sa laa koy commencé. Mhm. ma topp ko saa ma ko wooyee mu ree noppi mu reer noppi reer ba ci suba ma ne ko yaay xanaa doo def ni sa doom wallaahi mu jox ma sarax ne ma def ko suñ ko defee muur day am ndam kenn tere mënut a def ndam de. ma mhm. génneel. dugub mboq ma génne ko am ndam. Mhm. bii passé ma ñëwaatal sama bopp jour trente et un décembre. mu mhm. reen na ma ne ko yaay mu ma ne mu ne ma ah yow fu ne loo bëgg si kër gi du ma ci teg baat. Mhm. da waxaat ma lu may na ne ma muur day am ndam nag. dama am na rëq-rëq waaye lu métti métti dina daan booy ñaar jël bu set wecc. voilà dëgg yàlla. lépp lu ma mës a wax gis naa teg naa gis sama bët. lépp si lu ma ko ñaanloo ak faj teg naa ci sama bët. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. fu ne nag dem nañ fa ñu nax ñu. Mm-hmm. waaye man yeex naa xamanteeg moom. waaye bi ma xamanteeg moom ba léegi. alhamdulilah rabil alamin dama koy ñaan yàlla yokk fan yokk mën-mën bi lépp lu mu teg yàlla gën cee teg loxo. voilà. macha allah <laughs> jërëjëf ndeysaan ah. ndeysaan ndeysaan xam nga ki lay defal te tegu leen ci benn condition. billaay. tegul benn condition. doom mm. lu lu dul defal nit ñi dama koy defal. Mm. Mm. lu mu bañal nit ñi defal ma ko musuma jël rendez vous su xatee sax daf may jël doo ko jël ñu jël rendez vous. buur. kooku damaa bëgg nga jàppal ma ko. Mm-hmm. waaw. mbër la de lañ ma nax nag. bu ne mm-hmm. lañ ma nax. Mm-hmm. waaye daal macha allah. ndeysaan du lépp la ñuy wax mais dama koy ñaanal rek. Uh-huh. <laughs> lu ma lu ma lu ma yéexee dugg ci kër gi. ndeysaan ndeysaan ndeysaan te sama xam moom day gën a continuer si kàttanu yàlla. ndeysaan ci barke si li ma gëm. ndeysaan ndeysaan jërëjëf kilifa gi kontaan nañu. ba ba gën a la nga nuyu ma ko bu baax. dina ko dégg incha allah incha allah <laughs> ndeysaan muy témoignage Soxna bu am solo man mi li ma lay jege jege sax seen jëflante xaw ma ci woon lu bari. man daal nga ma wax rek ci làmb ji man moom ba ma man découragé naa ci combat man ba ma fi ñëwee jour 31 nga ne ma ah gisuma ndamul booy ñaar de man la man am na kilifa gu ma woo wàcc yàlla ak yonent bi ne booy ñang dafay daan motlu nga ne ma yoroon na ko de waaye jamono jii yoratu ko ma bëgg la ko seetloo nga ne sama gi kër gi demal jox ma sama pitaw ya ma xoojoon ca meew ma foofu nag laa bëgg ñëwee lu tax pétaaw yi des fois aada di ko xooj ci meew lan la sëñ buur mhm. bëy ku ko dàq wax amut waaw dëgg la de pétaaw ko dàq fen amul mhm. soxna aada heure bu nammee takk ay jaajam mhm. day wut meewu bëyam jouru lundi wala jeudi ci la koy xooj bu boobaa lépp lu mu bëgg a xam ci àdduna danga koy xam ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ndax kat sangu-sang yi dama doon bañ la ko daloon dal ma ba muy bëgg mbir te wax ko te toog tegu ca incha allah yàlla da ko natt mm-hmm. kon nag loolu leçon la ci ñun mm-hmm. ndax sunu borom ko jiitu ci dencan bi da ngay kunkuni ba sonn mm-hmm. ci réew mi nit sutuma ci ci wàllu seet ak ñaan yàlla loolu laa lay dëggal wallaay maa ci xam xam nga ni jigéen ji dugg ci combat di ci ñaan te séntuwu ci cent franc oma sahib naa illaa bi maalim naa laajul dërëm nee na la dañ ko yàgga nax mm-hmm. nagak ba ci otoog lu ne laaj nañ ko ko mm-hmm. jëmm ji mu di ko joxe jamono bi ma fayee man weexal mm-hmm. kilifa ñu war koo ñaanal ngir mu am ci ndam ba ma ko fàttulee gisuma ndamam rëyu ma de dama ko ne li nga may ñaan loo ba ma demee ni ma ko foogee woon demewul noonu hmm. ndax li muy yóotu amu ko hmm. gisaguma ndam ci loolu sëñ buur sëriñ yi ñan ñoo la ko ciy wax lu dul di la teg ci programme démb am na jigéen ju ma woo bugguma wax turam mhm. doomam dafa mu mel ci ay mbir mhm. moom ci làmmiñu boppam mhm. ku dee ak sa bàmmel sa bàmmel sonaa du fekk nee na ku ne bindal na ko tuddal ma ay punkal yoo xam ne ay ñaankat yàlla lañ ne ma mel ni soxna Ada laa ci toogal. mu xool ko ne ma duma lekk sa xaalis xale bii li koy bàyyiloo lii du ñaan yàlla xaw ma si ay fàttali ki may wax wala déet. xam naa ko bu xale bi mooy xëy bàyyil boppam lii mais ku la ni mën nag ñaan buñ ko joxee ñaan gi day gën a rakkaaju te effectivement nee na ma kilifa diw bi mu ko joxee ñaan gi <laughs> xale bi dafa gën a mel ni ku ku xabtalu. sëñ buur mhm. nit mënuñoo jox lu ñuy jariñ mhm. ñun sunu borom bim ñu bindee la ñu sàqal li ñuy jariñ te du jóge ci kenn mhm. kun mi nga xam teraangaam yi heure bu xëyee diñ ci may nit nag loo dul may sa bopp lu luñ la ca may nga daal di jël sunu borom du ñu teral ba pare teg ñu fu kawe ñuy wàcce suñu bopp dërëm jaru ko est-ce que man réew mi dañ la bëgg nag dama ni coowal Sonko lu ko gën a riis gën koo bëri. wallaay ndeysaan. pourtant nee nga ma ba taay loola teree ñaan ci. te ñoom def nañ délégation ñëw fii ba ci yow. yow woo nañ la ba taay woo ma waxtaan ak yow nga ne ma du ma ci dugg ndax gisuma génn Ousmane Sonko léegi ci kaso bi dëgg-dëgg. sëñ Buur. Mhm. jéeg boobu yendu na sama kër. Mhm. ba mu ñëwee laaj ko dama ko ni sa cent franc duma ko lekk. Mhm. mu ni ma jox naa sëñ diw nangam jox naa sëñ diw nangam man ko ñoom ñooma man li ma sama seet di wan. gone gii duma ko faj gone gii mooy faj boppam ëllëg mm-hmm. mooy bëgg a bàyyi bàyyi àpp mm-hmm. bi muy toll te war a bàyyi mm-hmm. su jotee di ko yëg te heure boo xëyatee lundi wala jeudi defal ko sarax nangam mooy tax mu dal gone ga dal na sëñ buur ñu duggati ci rab ma ciy def lu doy waar. man kay man kay. soxna aada di dugg ci làmb ji te boolewu ko ki wax. Mhm. ku ci duggoon dëkk bépp dégg la. Mhm. lii soo ko sàkkuwul woon du am. wallaay dëgg la ndax ki fi doon ñëw ba mu fi ñëw sutura laa ma sa dund ak man man kay ci man la bëgg keroog ba ko ñëw mhm. Modou di laaj dañ leen soxna si bugut a feeñ pourtant am nañu doon changé wax ji ni leen soxna aada dani Modou daa mën a jënd bis su ma nee daa mën a jënd bis dëgg la waaw loolu wax la ñooy xam samay wax samay wax mm-hmm. mag a koy xam du xale mm-hmm. sëñ buur jëmm ji keroog ba ma nee ko li nga ma fàttaloo woon xalwa ci kilifa googu du sotti boobu ba tey yaakaar naa sottiwul waaye jëflante nañ fi ay yooni yoon mm-hmm. mu teg ci bëtam man li ma mën dama ciy fayeeku dama ciy liggéey dëgg li ma mën dama koy liggéey di ko maye waaye li ma mën it dama koy liggéey di ci jaamu yàlla sunu borom sëñ buur lu sëriñ bu baax di am ci jamono bu ma ko amul ci man la wallaay dëgg lu ne fi ñuy jaar bu ma fa jaaree am lu ëpp li ñuy am wallaay dëgg la waaye dignité waaye dëgg waaye man soxna fan yi gëj naa sangu de nit mën nga maa ëppale waaye doo ma ëpp ngor ak jom man gëj lu nit yor di ko jaay dama koy maye nit mënumaa terele lu ma jaaxal billaay barke alxuraan man du ma jug ci loxo loxo bu ma bàyyi loxo ngi taxaw leer na jéeg yi dañoo takku ba mel ni naanaa ni ma soxna Adu bëgg nañ chaque émission ñoo lay solal waaw tey de bii ak bële ah waaye nañ jàpp ne soxna Ada bëggul solo ak su meeku léegi-léegi nit jox la dara ni gisaguma ko lii ki ma ko jox xam na man xam naa mm-hmm. teraanga yam ca tegit xam na ko man xam naa mm-hmm. maay toqal ci xol yu neex neex maay téye sëy kooku nee na ma soxna aada ay noom moom nit sutu la ci ndax sama jëkkër léeg-léeg damay defe ni dëmm la damay lekk <laughs> seen buur ci loo bëgg ñu dem soo paree ma présenté samay garab waaw balaa ñuy dem ci loolu man damaa gëj a sangu loolu soxna ma lan la. sunguf sii ngay gis de. léegi man lu tax su la ne damay coupé émission bi de. waaw dama ne la sunguf sii <laughs> ngay gis man la <laughs> eh. buur barke yonent yàlla Muhammad su ma la ci sangee semaine. Mhm. foo toll boo fayee sa téléphone dinaa yow sa wéb yi di dugg. loo ma wax ci sunguf ma gëm ko. lu leer laa lay wax. Mm. boo demee ci pël mu lay jox sunguf joxu la sunguf bu weex joxu la sunguf. man maay cobaye bi. taman damaa yàgg ki pël. Mhm. am ci maami pël am ci ndayi pël lu ma la kon daal sunguf si daal di nga ma ci mosal balaa maa dem man xam nga yaay sama yaay. dinaa la ci defal man sama yaay daa dee ñu dénk ma la. man yaay sama yaay. daa yërëmtalu waay ndeysaan. <laughs> benn waay ca France nee na ma buur neel soxna aada yow buur gënoon ñu bëgg lu baax ah. ndax lu mu présenté dama naan coow li nee na soxna aada bi mu ko naan buur bi laay tey bii doo ci ñam nee na ma ne ko xoolal. lu neex buur rek la bëgg <laughs> buy pare naan ko kay sangu ma ne ko noonu la demee soxna aada ñëw ci sunguf si nag ñëw nag ci maanaam sunu gaay yi nag. am na sama doom tey ju fi ñëw jóge extérieur dama kon hmm. tey moom nit du dugg ci kër gi. Hmm. yow rek laay tal. dama ko defal ba defal ko lu kawe njottam ci kàttanu yàlla yàlla jóg. yow foofu garab dañ ci am yéene. dañ ci am ba ma ko yéenee garab ba ma hmm. ko ko yéenee di ko ko defal. boobu xaw ma woon ni sax ay mbiram dina saafara. nee na ma sëriñ bu ne lekk na sama xaalis. yi si nafsi Muhammad yadi. maa ngi giñ ci bakkanu Muhammad mu sell mi nee na ma loo ma mës a defal teg naa ci sama bët te musoo maa sonal te musoo maa laaj lu ma amul mhm. te bi ma tàbbee ci yow ci laa commencé sama liggéey di dox moom mooy wax de mhm. sama tëraay bàmmeel kenn du ma fa fekk sëñ buur sunguf si lu munul ci góor ak jigéen amul ci wàllu nopp ak jiboole ah, waaw waaw sunguf si mhm. ak seetu bu bees nga def ci suukar xorom lem parfum Mm. yàlla boo am guro gu weex mm. am sa puso mm. ba ma wax la li nga ci jat ba def ko ci tëmbal ci sa benn res ah sëñ buur barke yonantu bi mi ngi tukkal jamono boo jëlee nag ci sungu si ba gallax nekku ci suba laataa ngay sëlm ba toqal ko ci lu ci sa soxna di lekk wala lu muy naan wala sa borom kër jàmm rek ay xew nit du leen tàqale yaayam day defen dangoo nangu njuree la booleeg la nga yor ci ci soo <laughs> soxna sa gaañ yi indiwaat nga ci lu bees li ñu naan daajil ba ngeen paquet paquet ba nga daaj woon jeex na. waaw sunu gaañ yi ñëwaat nañu ñu def ci benn explication ñoom produit yi jaaree fa yëkkati jotaay. di nga gis ñu ñu yoon di nga gis ñu ñu yabal lépp pour saltel victoire soxna Atta. Mm-hmm. ñam naa ko banaa ko to ñafuñu la amul fenn. Mm-hmm. li wér maa ko yor. Mm-hmm. liy jugloo gars yi maa ko yor. su ma xëyoon tëj société bi góor dootu jugal. dëgg la dama ni. produit yi ñuy diwa ngi nii ngay yokkule du guddule di dijjile noonu la neexee. Mm-hmm. produit tàngal yaa ngi nii pour jeeg ji la ñu dul excité ñu dul tooy ñu dul yëg bànneex. Mm-hmm. produit butéel yaa ngi nii. mooy bi ngay booy ak trois x bi. yow ñam nga ko. moo nekk nii. waaw bii li muy neex neex yaw poudre bee la ko dàqal daa mel ni. waaw daa mel ni poudre bee la ko dàqal ndax poudre bi daa gën a simple. poudre moo nekk nii defe naa sonaada. ah xàmmee nga ko waaw mu ngi nii mooy mooy bi ànd ak café gi. ñam naa ko bàyyi naa ko wala wala wala meew. Hmm. tàngal jigéen ñi la. waa lii moom am na ku ko ñam toog seede ci sa kanam. fii sama kanam kay ne ma man buur. man daanaka keroog maa <laughs> ko teree daanu ndax waaja daa daa di fiir defe ni daa am fu mu jàdd man samay produit baaxul waaw bii tamit wuute na ak de bii mel ni. café bi waaw da ngay gis ñoo xamante ni léeg-léeg dañuy am wéré di biir. ci biir jàngoro jàngoroy biir ñi am problème métitu bopp mhm. ñi am problème mu digg ak tànk ay wére di yaram dañ leen koy jox buñ ko mhm. naanee ci saa si day sedd ci kàttanu yàlla mhm. sëñ buur liggéey lekk wóor li la nit ñi di waxal li ngay jëf te mu dëggoo ko ëpp te moo ko dàq fuuf nag résultat sëñ buur man damay bëgg bu ma nit yónnee xaalisam bu ma ko lekkee mu rees ak jàmm parce que xam nga ni gémmañ gu dul lekk riba heure bu ne alaaw ma yàlla nangu yàlla nangu dañuy ñaan yàlla nag sunu borom may ñu heure bu ñu ñaanee mu taseek am ak xol bu rafet ak bëri sëñ buur mhm. ci kaw de bañ fa yéegee ba ma wan la sangat ya ba tey ku ne bëgg na faa sax waaw mooy sangatu jinni ja waaye ku mënul dara doo fa yéeg loolu lañ naan Dakar ga ca yoonu mbaa mais soxna yow a da xaw a da nga ci xaw a ñàkk yërmande légeti kese naquti bëy ay caaxaan amu fa ah, waaw li lay tàqale ak dëgërle ak të ak mucc ci say nawle ak ay alal ju bëree bëree bëri mm-hmm. loolu du ay caaxaan mm-hmm. ku la koy dénk la nga koy dénk na ko fonk ba xam la mu koy weccee ko mm-hmm. sëñ buur day doy te damay tàggoo ndax da ngeen a bëgg ko maye li ma yor yëpp te duma ko def fa axiru daawaana an alhamdulilah wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah soxna la ah. euh, man waroon naa indi sama cadeau doom yeeg njaboot geeg gis nga kaawmaan yi ñu nekk bi bitim réew man buur gën leen ma bëgg soxna aada dama leen koy wax cadeau yi ngeen di yónnee man jamono ngi ñëw ba su ma amee xaalis dëgg sonaara maa koy njëkk jëndal oto na leer. déggal li barki rasulilah. mais man sama jëkkër sëñ bu jox na ma kado. ah ana kado kado bu rëy xolam la ma njëkk a jox. ak lan. teg ci famille. teg ci xalal du bëri nag bégale ma ko. wallaay yàlla na. dëgg la yàlla na yàlla yokk wërsëgam. yàlla yokk xéewalam yàlla yokk manam yàlla yokk wéram te yàlla bàyyi ko ak yow vraiment. bëgg na la fonk na la sopp na la yërëm na la ñun taalibe ñëw ci kër yëpp xam nañ loolu ci moom. kon yàlla na ko yàlla dëggal kon soxna na kon wa ilay li xaa maratal uxra sëñ buur maratal uxra tama da mashuuran <laughs>